l'ONAS euh, il y a quelques semaines dafa lancé li ñuy woowee yoonu Qatar yoonu Qatar soo gisee ñu lancé ko Sénégal dafa qualifier coupe du monde jël coupe d'Afrique qualifié coupe du monde te l'ONAS nekk sponsor leaderu équipe nationale football depuis plus de trente ans donc ren ñu ne comme suñu lions yi def nañ jaloore ñun tamit dinañ yokk ci li ñu doon def organiser jeu concours bi tuddee ko yoonu Qatar maanaam ñi bëgg dem Qatar jàppale suñu équipe nationale de football parce que xam nañ supporter ni mu amee solo. ci football ñu jox leen opportunité ñu joue parier ci ay suñu ay jeu ñu def leen tirage au sort ñi ciy gagné ba mat huit personnes ñu mën leen jël yóbbu leen Qatar jeu yi nag ñaar la ci benn jeu bu ñuy tuddee mass commune internationale nga xam ne 34 pays ñoo booloo ak Sénégal di ko jouer masse bi am solo parieur yi xam nañ li may wax mais am nañ tamit beneen plateforme bi nga xam ne lonage moo ko moom mu tudd lonage point bet mu nekk ay jeux en ligne donc nit ñi mën nañ dem si suñu kiosque yi jouer mass commune internationale mun nañ toog seen kër yi tamit wala seen bureau yi jouer si téléphone portable wala ordinateur si plateforme en ligne lonase.bet ñooñu suñu jouer ba weer bi dee comme le 19 bi passé ñu def premier tirage bi ñu defee premier tirage ñetti ñi ñoo gagné ñoom ñetti ñi gagné ak ñi nga xam ne dans un mois dinañ def beneen tirage ci beneen weer ba ca topp ñu demaat beneen tirage mu nekk trois tirages au total ñu am huit gagnants ñooñu ñëpp li leen Lonase di yoreel mooy jox leen billet d'avion yóbbu leen Dakar ba Qatar ak dellu si mooy aller retour ensuite defal leen hébergement foofu Qatar ci ay hôtel yu mucc ayib pendant toute la période maanaam Sénégal euh, premier tour au moins Sénégal dina fa nekk pendant trois matchs lu mat lu ëpp dix jours donc loolu déjà jëlal neel jëlal nañ leen ko en charge su dee Sénégal dem na deuxième tour euh, lonage dafay continuer di leen jël en charge ba fu mbir yem te yaakaar nañ ne Sénégal dina dem ba finaal donc prise en charge boobu à l'hôtel ñun ñoo koy assurer danañ leen fexe tamit di leen déplacer fu ñu bëgg a dem ci biir Qatar wala bu ñuy dugg stade ñun ñoo leen di jox ay ticket pour dugg ci biir stade bi n'est-ce fii balaa ñuy dem tamit loo xam ne c'est lié à des frais de visa wala toppatoo visa loolu ñun ñoo koy euh, assurer donc prise en charge c'est une prise totale parieur bu ci nekk bu gañee li ñu lay laaj mooy passeport bu valide loolu rek lañ laaj donc ñi nga xam ne gagné nañu ñu ngi leen di félicité xam nañ ne ci un mois bii ñu def euh, plateforme bi ak masse commune bi gis nañu ay euh, parieurs yu bëree bëri di participer. mais tirage au sort ñett la mën génne ñett ñii lañ génne donc ñun ñu ngi encouragé ñi doon jouer ba fii ak ñi joué wul ñu profiter ci deux mois yi des pour parier pour bokk ci ñi non seulement mën nañ gañe mais également mën nañ gañe fii nekk ci ñi nga xam ne dinañ bokk ci ñuy yóbbu au donc loolu c'est un un appel que je xam naa ne tamit ñi nga xam ne gagné nañ tey dinañu. def di bouche à oreille informer yeneen parieurs yi pour ñoom ñu intéressé wu si jeu bi parce que lii weddi gis bokk ci comme on dit gis ngeen ñu ngi joxe ay titres donc c'est une réalité te ñii dinañ am possibilité dem ba ànd ak suñu équipe ba Qatar toog foofu la le temps qu'il faut supporter suñu équipe nekk foofu euh, maanaam mel ni ñu ngi seen biir famille yi Sénégal donc loolu laa amoon li may wax di encourager encore une fois ñii gagné di encourager ñeneen ñi nga xam ne yàgg nañu gagné ñu am loo xam ne ñëpp dinañ ci teg seen bët ba mu nekk également loo xam ne dina jig suñu équipe nationale ñu indi fii ndam ndam lu rëy. waaw c'est bon euh, euh, xanaa bëgg rek kontaan rek te li ma gën a souhaité mooy du ñuy ñëw fii ñu indaale coupe du monde comme nu ñu indee coupe d'Afrique des suñu souhait suñu vœu mooy ñu indaale coupe du monde fii loolu daal pour une première fois en Afrique mu am fii mu gën a si Afrique. ñu ñaan daal suñu borom defal ñu loolu. papa fàttali ñu tur bi ak. man Ababacar Samb laa tudd. voilà nga noonu la loolu la suñu borom dogal bokk naa ci ñi gagné tey maa ngi koy sant yàlla nag waaw ndax lu am rek suñu borom la fii la ko awale nag dama koy sant voilà. nan nga joué nan nga joué ba gagné. waaw comme ni boo joué rek da ngay enregistré sa ticket nga jox ko ñu am na des yoo xamante ni Lonase yebal na leen foofu. ñu enregistré sa numéro so au fur et à mesure nga joué nga enregistré sa numéro. comme ça léegi su fekkente ni tirage bi am na comme ni ko yàlla dogalee nii rek yàlla génne ñu ñu bokk ci. lan ngay yëg ba nga gagné. dama mm-hmm. bëgg euh, la masse commune. bon après bon je vis sur la site Lonas. bon euh, Younou il suffit que d'enregistrer ton nom et ton prénom avec les numéros de ton ticket. Mm-hmm. et puis de téléphone aussi. chaque jour je joue je continue à faire comme ça. Bon, le jour du tirage, après, on m'a que je suis parmi les gagnants. Donc. Que ressentez-vous Bon, à ce moment-là, j'étais un peu surpris. Après, je suis très content. Oh, euh, je suis barrière et je suis gagnant aussi au Qatar Et aussi, je profite pour cette occasion de remercier la LONAS euh, pour cette cette, cette, belle surprise euh, qui m'a fait. Parce que je n'ai jamais pensé aller au Qatar. et, et, suivre la Coupe du Monde. Mhm. Vraiment, je suis très content. Euh, j'encourage aussi euh, les parieurs euh, à aussi, aussi parier pour en bénéficier comme moi. Merci beaucoup.